borom jom mooy bi ñu taxawee ne face à du am. Mhm. ma dogu ci sëñ Fallou keroog ci hôtel Fana ne leen face à face dina am. Mhm. Mhm. Ah, na lu bare. mais temps bi xëy na ko may. <laughs> mais Dakar yi li ma bëgg a wax. jërëjëf sa parce que tey dañuy wax. làmb gi bëgg lu bëri. am na lu bare loo xamante tey. il faut mu leer ci bopp Sénégalais yi. c'est pas parce rek am na nu mu demee woon. nit ku ne jël sa kii di wax jaru ko ñun li ñuy def dañ ko xam mhm. dañ ko maîtriser waaw musuñu waaw mais dama la wax benn wax bu ndaw képp ku taxaw naan ay làmb dañ ko bëggoon reporter mhm. nee naa la mbër yaa ngi may seetaan manager yaa ngi ànd ak mbër yi ñu ngi may seetaan mhm. bërki démb laa lebal mbër ay millions yu bare bare bare bërki démb ku yaakaar ne da ngay eh, repousser làmb da nga leb la ay millions tey damay tudd tur am na koo xamante ne mu ngi bitim réew lundi lay jël avion après demain kii xam na ki may wax pour indi billet lamb ji. Mhm. kuy xalaat reporter lamb di nga fay ay millions yu bare pour billet lamb. ah. te kooku mënul delloo bi mhm. nee na ma day indi billet yi. donc ñu demee noonu. c'est-à-dire nit bu am naqar ba pare. Ah, nga wëlbati ko encore. di ko tegaat yenn coono yi. nit ñi delloo seen xel. Mm-hmm. man li gars yi di wax toppatoo mu nga parce coow tàmm naa ko. Mm-hmm. man bu ma amul coow sax du nekk. <laughs> tàmm naa coow c'est vrai. <laughs> non <laughs> benn góor mu dama ko wax. Uh-huh. Ah, boo amul coow bu dee boo doo xam ne doo am dara. Mm-hmm. coow tàmm naa ko miin naa ko. miin naa ko nit ñi nag mën nañu wax lu leen neex. waaye ala kulli alin xam nañu ne événement. te saa bu ñu posé événement bi rek yow da ngay defaat da nga ciy dolliwaat alal. mais dama ne man lima ma daj sama famille sax dama len di djeglu mais man lima ma daj ci ñaari wër yi du ko expliquer nit damay tok ba xulok sama waa kër duñ ma teg bët une semaine dagar lay ne nday jaay mi duma bayima bàyyi ma fen du ma lekk neex duma ma luma neex duma tudd tëdd fu ma neex mais lolu yëpp bo gisee ma diko def pour lamb ji réussir do egsi nak ba deux semaines lamb ñu wol du wax ne am mais man man xam naa Modou Lo bu baax mm-hmm. biñ ma ne dafa blessé la xam ne du bëre moo tax ma wax ne carrément làmb ji reporté nañ ko te kenn gënu ma yeyoo wax ci làmb ji. man ñi ci def suma alal. am na solo leeral donc ah. tey Modou Lo bëri na ak Issa Pouye Mbaye Diagne du ma bàyyi ma fen tànk bi dafa xotteeku dañ ko ñaw li ko dalee ci suuf ba ci kaw. Mhm. kooku yow kuñ la ne kii bëri la ak lii doo ko gën ci biir stade bi lañ ko piqûre anesthésie mu mën a bëre. Mhm. bu mu paree lépp a teppeeku waat ñu dem ñaw ko. dëgg loolu du dëgg Mbaye Diagne. Mhm. as yaa nga fa woon. bu muy bëre Gris dañ ko piqûre mu gën a bëri faar bi dafa damm. kon tey na nit ñi bàyyi yenn amalgame yi jaru ko fi. fi yàlla rek moo fi ne. yaakaar na yaa mën yaa ngi juum suñu borom moo fi ne bu ko neexoon duñ fi toog tey. Mm-hmm. Mm-hmm. liy am suba moom dong ko xam. yàlla na ko xam. Mm-hmm. am na solo. leneen li ma leneen li ma ci bëgg a dolli. waaw bëri bëri. tukki neex na. tukki neex na. voyager. di préparer ji combat. mais lii daana ngi fii de. lii daana ngi fii. daan a ngi fii nganuus mhm. gii mhm. diin yii mhm. ñoom ñëpp dinañ dem lu ñu fay def mooy yenu ay weñ ak leneen yenu ay weñ mais boo bëggee entraîner bu wow koŋ demal ci diin yii nga entraîner fi ngay daane ñoom ñu tukki ñëpp wóole nga laaj leen du mu fa def benn contact te mbër contact waaw boo contact bul doo bëri. doo bëri da ngay ñëw nga def contact loo dem dem dem boo ñëwee it da ngay dem ci gannus gi nga bëri. Mhm. nan miin gannus gii nan ko gën ñoom ñëpp daawuñu tukki. kii xamul woon loolu nekk kon loolu la Modou loo doon def contact boobu moo ko indil gaañu gaañu bi. voilà parce que dem na.

doo fa jëlee lenn lenn lu dul xanaa nga jël fa ngandam maami biir. Mhm. wala nga jël fa balaise. Mhm. te loolu daanu kenn. dama la conseil la. fi ñu entraîné dem ci gannus gi entraîné. conseil bi am na solo. Mhm. merci je pense que béykat comme ni ko waxee. Euh, mbëri am na lu ñuy daw aussi. entourage bi pour récupération bi. mais récupération bi mën nga ko def Sénégal.

loolu fa mën nga fa loolu entraîné fa kenn du la gis te doo egg sax ci prix ba nga xamante ne dangay fay mooy gën a néew mooy gën a di nga am air pur di nga contact di nga entraîné mais est ce que loolu rek moo leen yóbbu est ce que nekkul ne aussi ñoom it euh, euh, professionnellement c' est à dire jàpp nañ ne bitim réew lañ mun a amee ay encadreurs yoo xam ne c' est des professionnels yu leen mun a tàggat ci li ñu soxla est ce que nekkul loolu la wuti au fait maanaam dañ ko amul ci seen non non professionnel yooyu uh-huh. ci ay physique lañ la mun a mais mm-hmm. mun la tàggat ci xam-xamu làmb te aussi fi ngay bénéficié parce que déjà am nañu ay ay croyances soo toogee fii le temps que ngay perdre fale bañ a sangu su nekkee fii da ngay sangu te làmb ak loolu mooy ànd donc mun nga entraîner mun nga récupérer li nga bàyyi fii war ko tardé di nga ko def fii am na solo ok